ربي غافر ذنب لنا توبنا للطفه بنا بنا بنا أنا لربي غافر ذنب لنا ذنب لنا غافل توبنا للطفه بنا بنا بنا حمدا لربي غافر ذنب الذنب لنا قابل توبنا للطفه بنا بنا بنا حمدا لربي غافر ذنب لنا يا الذنب لنا قابل توبنا للطفه بنا بنا بنا ثم صلاة ما صلاة من مستد من مستد على الوسيلة شفيهنا لكرم على كره لربي غافر ذنب لنا ذنب لنا قابل توبنا للطفه بنا بنا بنا هذا وإن له أوده يقول ما جنيت مذ غابلت غابلت حمدا لربي غافر ذنب لنا ذنب لنا حابل توبنا للطفه بنا بنا بنا فقلت تائبا بلا تواني تواني مبتغيا غفران زل غفراني غفراني حمدا لربي غافر ذنب لنا ذنب لنا عابر توبنا للطفه بنا بنا بنا واغفر لما لمشت باليدين يدين واغفر لما مشيت برجلين رجلين واغفر لما لمست باليدين يدين واغفر لما مشيت بالرجلين رجلين يلا بل نلون مصلاتي ci loxo yi ci loxo yi te bal na fu nu masa dox yi te neexu la te bal na nu masa laal ci loxo yi yàlla ci loxo yee te bal na fu nu ma sa nu fuunu nu ma sa ci tànk yi te neexu la nu fuunu nu ma sa ci tànk yi te nga baal nu fu nu masa dox ci tànk yi te neexu la nu fu nu masa dox ci tànk yi te neexu la nga gi toll mbàkke muy diiwaan amiru sultaan gaynde bamba ñun de moom yaa nu jox gi toll mbàkke muy diiwaan diiwaan amiru sultaan gaynde bamba ñun de yaanu moom yaanu jox ngeen gi tool mbakke muy diiwaan amiru sultaan gaynde bamba ñun de yaanu moom yawma nisfi shaabanihi shaabanihi yawma nisfi shaabanihi شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه shahbanihi jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Borom Touba jërëjëfe Borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ma Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Nouré jërëjëf ngala ma Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Nouré ñu ngi jégalu ñëpp bu baax a baax mbokk yi mi ngi noonu mbokk yi mi ngi noonu seen émission ligne 66 euh Sénégal TV fii ci kër maam Thierno Imaam maam Thierno Sani moom Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni dégg ngeen ni mu ko waxee xam naa ni dana am ak moom ak beneen jotaay ñu waxtaanee yeneen waxtaan yoo xam ni dana yitteel ñi nga xam ni ñoo jokk ci Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni ak ak ak ak murid waaye ak jullit yi ndax Cheikh Modou Kara moom ñëpp ko moom. Hmm. du mu rekk ko moom. Hmm. Euh, mu ngi noonu euh, ñu ngi amaan mbégte di sant bu baax euh, directeur bi ak ñi nga xam ni ñoom la ñu liggéeyandoo foofu. di sant sama cameraman Moussa waaye ak sama réalisatrice soxna Ndey mi nga xam ne ndeysaan jàmbaar lool mu jox leen dig daje insha allahu rabbi ak beneen invité fii ci Sénégal TV wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Mbacke macha allah barkalla gàtt gi rek kay